نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw ba nu tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaara ci weer wu màgg wi nu génn ñu nekk ci ay bëccëgu idul fitr ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala sunuy jaamu yal na ko yàlla nangu lépp lu nu tarxiis yal na nu borom bi subhanahu wa taala jéggal waaye mbokk yi ramadan day nekkoon na weeru quraan ay bëccëg yoo xam ne ak ay guddi yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala ci la wàcce woon téeréem bu mag boobu tudd alquraanul karim ñu jàng ci alquran buur subhanahu wa taala naan sahru ramadan allazi unzila fihi alquran ci weeru koor ci la yàlla wàcce alquran kon weeru koor nekkoon weeru quran mu feeñoon ci dund gi bu baax a baax a baax jàkka yi foo dem ñuy tafsir quran rajo yi rajo boo ubbi ñu ngay jàng Qur'an di tafsir Qur'an télé boo xool ñu ngay jàng Qur'an di tafsir Qur'an mbaa mbokk julit yi du nu wax ne weeru koor jeex na kon weeru Qur'an jeex na ñu bari ci ñun fi ñu yem ci weer wi ci seen tafsir dugal nañ ci kayit wala ñu teg ci seen baaraam wala ñu dugal ci bant daa di jël téere bi aj ci kaw bibliothèque bi wala ñu muur ko morso dugal ci biir armoire bi ne ko ba ramadan bii di ñëwaat mbokk yi mbaa ñun du nu mel noonu mbaa ñun bokk ñu ci ñi nga xam ne dañ naan weeru koor jeex na rek alquran jeex na xam ngeen ne alquran ëpp naa nekk alquranu bés wala alquranu semaine wala alquranu weer wala alquranu at inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam loolu la yàlla wax ku bëgg a jub yàlla neen alquran bi moo lay jubal alquran bi moom la ñu yàlla jox mu ne kitaabun anzalnahu ilayk li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur ku bëgg a génn ci lëndëm yàlla nee na alquran moo la ciy génne li tax nag ñun réew mi duñu génn ci lëndëm c'est parce que dañoo jafandikuwul ci téere bi moo tax ci lëndëm rek la ñuy nekk duñu tàyyi di ko wax duñ ci yokkat duñ ci dellu ginnaaw ndax loolooy li am danoo bàyyi quran ci ginnaaw topp suñuy bànneexi bakkan looloo tax duñ jug moo tax sunu dund du barkeel yàlla wax ci quran wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka képp ku bàyyi sama téere bi yàlla nee na da ngay dund dund bu metti bu nu nax sunu bopp bu nu nekk ay jullit ci koor koor jeex ñu démissionné kenn ci ñun dootul jàng quran am na ñoo xam ne ci bëccëgu weeru koor bés bu nekk danañ jàng hizib waaye biñ nee wari nañ ak léegi nii la ñuy rombee kaamil bi va et vient te bëccëgi weeru koor foo leen gis ñu ngi ŋàbb ab téere quran fu nu toog suñu jullee ba pare bu ñu jullee fajar bu ñu delloo si kër yi lu ñuy def mooy jàng quran léegi nag quran weeru koor jeex na ñu bugg a def weeru koor weeru yeneen yëpp alquran bokk ci moo tax duñ dem kon weeru koor jeex na waaye jàng quran du jeex jàng quran min al mahdi ila al ahdi la fi ngay juddoo ba bi ngay dee di dugg ci bàmmeel bi ci berceau bi ba ci biir bàmmeel bi alquran warulaa wàcc moo tax alquran moo lay gunge ba ci biir bàmmeel alquran moo lay gunge ba nga dekki alquran mooy jàpp sa loxo ba dugal la aljanna yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne iqra'u alquran fa innahu yaati yawma alqiyama safihan li ashaabi jàngaleen quran ndax mooy ñëw yawma alqiyama di leen rammu doomu ndey ñun ñëpp dañoo bëggoon ku nu rammu Sénégal dara tardé lu leen lu dul baat boobu ma wax muy baatu rammu ndax danoo jàpp ne mën na noo nekk nu nu neex lank jaamu yàlla waaye ëllëg am nañu ñoo xam ne noonuy rammu bu fekkee da ngaa bëggoon ku la rammu yonent bi nee na la jàngal Qur'an Alqur'an dina la rammu yowmal qiyaamati bu fekkee rammu rek nga bëggoon yonent bi nee na Alqur'an moo lay rammu ëllëg waaye doomu ndey weeru koor kaana sahrul qiyaam weeru naafila guddi la la woon guddi jaamu yàlla guddi ñu bari ci ñun bu nu reeroon ba pare kenn ci ñun du tëdd kenn du doxi kenn du kenn du lu dul da ngay dem ci jàkka yi di naafila mbaa dun ne weeru koor jeex na naafila jeex na allahu akbar dëbi koor gi da ngay seen jàkka yi ràmbet ba ci tali bi yenn saa yi sax oto yi buñ ñëwee duñ jàll parce que ñëpp dañuy ñëw naafila waaye ni weer wi di demee ngay xool asamaan si weer wi wàññeeku wala muy yokk sooy xool asamaan si weer wi wàññeeku wala muy yokk waaye boo ñëwee ci jàkka yi noonu ngay gisee sàppe yi di wàññeeku ñu bari dañ naan barkeelu naa ci rek am naa ci ñetti guddi kaana shahru ramadan shahrul qiyam guddi yuñ doon taxaw di jaamu yàlla la waaye est-ce que su weeru koor jeexee naafila guddi day jeex déedéet abadan naafila guddi mooy gunge gaa yu baax yi ci yàlla gaa yu baax yi bu ñu bëggee egg ci yàlla guddi la ñuy jóg moo tax yàlla ne leen allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama dañuy fanaana naafila di sujjoot di taxaw ba bët set kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun yàlla nee na ñooñu lu néew la ñuy nelaw guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla nammee formé ci ci naafila guddi la ko yàlla formé ya ayyuha almuzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا yàlla ngi formé yonent bi ci ñaari mbir ci naafila guddi ak jàng Qur'an ci ñaar yooyu la yàlla tàggate yonent yàlla Muhammad ci la yàlla tàggate sahabatul kiram saar bi ñu jàng léegi moo nu ko nettali yàlla ne yonent bi jógal julli guddi yi boo sonnee nga jàng Qur'an kon bu ne weeru koor jeex na kenn dootul jàng Qur'an kenn dootul naafila guddi abadan yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yal na yàlla yërëm borom kër ngi tëdd ba guddi gi xaaj mu jóg bu waree sangu-sangu bu waree jàpp-jàpp mu yee soxnaam soxna si lànk bañ a jóg ndax teyal mu jël ndox ci loxo bi daal di koy wicc ci kanam gi soxna si siggi xool ko mu ne ko jógal ñu naafila ñaari rakka ngir fàttaliku lënd mu bàmmeel mbokk yi jullit guddi gu nekk war nga julli ñaari rakk ci sa lënd mu nekk ngir nga fàttaliku ci lënd mu bàmmeel ndax ñaari rakka yooyu nekk sa assurance lu lay musal ci lëndëmu bàmmeel loo dee dee nag laa wax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom daana paase ñaari rakk weeru koor weeru infaq la woon kaana shahrul infaq weeru joxe la woon joxe tabe yonent bi alayhi salaatu wasalaam su weeru koor jotoon day moo doon gën a tabe ngelaw li weeru koor jeex na est-ce que dañ naan ñun ñi doon saraxe ñun ñi tabe woon ñun ñi baaxoon daan bokk ak sunu dund nit ñi nga xam ne ku yoroon benn tàndarma sax soo ko xooloon mu dagg ko ci digg bi ne la am ndax dañ naan weeru koor jeex na kenn dootul joxeeti abadan weeru koor moo jeex waaye joxe du fi jóg weeru koor moo jeex waaye naafila guddi du fi jóg weeru koor moo jeex waaye jàng alquran du fi jóg yii day topp ab julit ba dugg ak moom bàmmeel topp ab julit ba dekkindoo ak moom topp ab julit ba jàpp ci loxoom dugal ko biir aljanna doomu ndey weeru koor weeru joxe la woon yàlla nee na wa anfiqu fi sabilillah joxe leen ci yoonu yàlla na ngeen yëg ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lépp lu ngeen mën a xas joxe ci yoonu yàlla ëllëg di ngeen ko fekk borom bi subhanahu wa taala daal leen koy bindool wa ma anfaqtum min nafaqa lépp lu ngeen mën a joxe ci nu mu tuuti tuuti tuuti yàlla mu ne yaalamuhu llah man yàlla xam naa ko ak nu mu mën a toll man yàlla xam naa ko kon nag weeru koor moo jeex waaye joxe ju fi jóg waaye kaana shahru ramadan shahru du'a weeru koor weeru ñaan la woon yonent bi sax daf ci assuré woon koo xam ne da ngaa woor heure bi ngay dog soo ñaanee yàlla may la allahu akbar waaye nag man de li ma jaaxal tiital ma mooy ku ñaanul woon ci weeru koor ndax di nga ñaan su weeru koor jeexee koo xam ne sax yow bëccëg assuré bi ñu la assuré waxtu wi ngay dog li saaimi daawatun mustajab inda fitrihi aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ki woor ba ngoon bu doon dog ci waxtu wi muy dog yonent bi garanti na ko ne bu ñaanee yàlla may ko waaye foofu ñun dun daawuñu ko woon tal sax ñun ay waxtu woo mu ngi na doon fekk ci kanamu télévision yi ñuy seetaan théâtre yooyu nga xam ne yàlla daka rëbb ak ñi koy def nit ñooñu nga xam ne yàlla da leen a rëbb ñun yooyu lañ doon seetaan di xaqataay di ree waaye kenn ci ñun du tal ñaan ci waxtu wi nga xam ne ubbil nañ la ubbil nañ la arche ubbil nañ la pay yu sell yi yonent bi ne la yàlla nee na la boo ñaanee mu may la boo ñaanee rek yàlla may la waaye dama ragal ne ku ñaanul woon ci waxtu woowu te tey loolu jeex waxtu yooyu jeex wallahi ndax di nga ñaanati dañ ñoo réeral réeral nu ba ci jamonoy jaamu yàlla sax du nu tal yàlla xoolal ki woor ba ngoon bay dog yonent bi ne na boo ñaanee yàlla may la yow nga nga nga nga nga téen di seetaan ab télévision ab théâtre boo xam ne doo ci jëlee benn njëriñ lu dul diree rek ba kañ weeru koor weeru ñaan la woon yàlla subhanahu wa taala nee na su ngeen dul woon ñaan yàlla yàlla du leen faale maa yabau bikum rabbi lawla duaukum wallahi alazim bun dul ñaan yàlla yàlla du nu faale te koo fi ñaan benn ñaar ñett ñeent juróom mu jëppi la ku dul yàlla ku dul yàlla laa wax boo ko ñaanee benn ñaar ñett mu jëppi la amma allahu subhanahu wa taala moom doo ngay tàll di ñaan mu lay may ku dul yàlla boo ko ñaanee ñetti yoon mu mere la boo ñëwee ñetti yoon buntu këram fëgg ne ko man la diw nangam laa manqué mu jox la nga ñëwaat même heure fëggaat mu ubbi wallahi bu ñettee boo fëggee du ubbi ku dul yàlla yàlla rek ngay fëgg muy ubbi ngay ñaan mu lay jox lu tax ndax moo ko yor walillahi xazainu samawati wal ard walakin almunafiqina la yaalamuun yàlla nee na magasin asamaan yi xéewali maa ko yor walillahi mirasu samawati wal ard maay doon asamaan doon suuf mbokk yi yàlla yàlla def ci ñun dëgg ak topp yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كان شهر رمضان شهر الصبر وشهر التوبة والرحمة mbokk jullit yi weeru koor weeru muñ la woon muñ lan lañ doon muñ jaamu yàlla lan lañ doon muñ mooy yàlla lan lañ doon muñ jafe-jafe yeeg nattu yi mbaa du nu wax ne weeru koor jeex na amatul muñ ndeysaan da ngay gis waa ji muñ koor gi yëpp tuxul cigarette koor gi yëpp logul poon koor gi yëpp damiyewul koor gi yëpp demul seeti xale bu jigéen koor gi yëpp góor seer siw ko soo waxee mu ne la damay sellal ndeysaan kon dañ naan daal léegi jaamu yàlla jeex na lu neex def nañ amaat suñu liberté bopp nan commencé waat ci mbapat yeeg lamb yi nan commencé waat ci musique beeg danse bi nan commencé waat ci bépp caaxaan nan ne weeru koor jeex na ñun ñëpp waaye nag yonent bee wax dëgg dafa am ñu doon jaamu weer wi am ñu doon jaamu yàlla ñi doon jaamu weer wi nanu xam ne seen yàlla dee na waaye ñi doon jaamu yàlla fa inna allaha hayyun laa yamuut fi ngay xamee ku kooram nangu ak ku kooram nanguwul rek mooy ñu ne weeru koor jeex na nga gis waa ji simmeeku yére yu baax yi mu soloon sol yére yu bon yi delluwaat ci soraare yi delluwaat delluwaat nga mun a waat ci yàlla nga gis waa ji xam ne dafa bokk ci ñooñ doon xiifal seen bopp waaye yàlla nanguwul kooram ku koor ku yàlla nangu sa koor bu koor jeexee da ngay lang ci jaamu yàlla lu tax aaya bee ko wax la'allakum tattaquun pour ngeen am ragal yàlla weeru koor weeru muñ la woon yàlla di ñu formé ñu mën a muñ nekkul rek dañ doon mën a muñ xiif déedéet looloo ci gën a ndaw nekkul rek mar lañ doon muñ looloo ci gën a ndaw nekkul rek mooy lañ doon muñ waaye looloo ci gën a ndaw bi nga wooree lu nekk dégg nga ko lu bëgg a yàq sa koor nga lànk lu ne gis nga ko lu bëgg a yàq sa koor nga lànk tëj say bët ne lii duma ko xool ñu ne lu tax doo ko xool nga ni dama woor ku woor du xool lii dañoo bëgg bu koor gi jeexee nga mel noonu noonu nga doon bañee woon xool lu bon noonu nga ko bañee woon déglu noonu nga ko bañee woon lekk noonu nga ko bañee woon naan noonu nga bañee woon laal noonu nga bañee woon dox suñ la waxee nga ni kon sama koor day yàqu duma ko def dañu bëgg bu weeru koor jeexee noonu nga muñee woon loolu nga continuer muñ googu loolu waaye bis bu la seytaane na too ba nga delluwaat ci loolu yëgal ne sa weeru koor yàlla nangu ko sa weeru koor laxas nañ ko ba mu dëgër këj ñu takk ko ba mu dëgër daal di koy dugal ci sa suufu tànk nga yëg ne wooroo woon waaye da nga doon xiif koor ak xiif du benn du benn dafa am ñoo xam ne dañ doon woor su koor gi jeexee da ngay xam ne ñii dañ doon woor am ñu doon xiif bu koor gi jeexee da ngay xam ne ñii dañ doon xiif kon weeru koor weeru muñ la woon loo doon muñ jaamu yàlla nga muñ xiif di julli waxtu yu juróom jàng alquran zikr jël sa alal di joxe topp yàlla loolu du fi jóge da war a continuer wa abud rabbaka hatta yaatiyaka al yaqin jaamul yàlla ba dee ñëw weeru koor weeru muñ la woon loo doon muñ mooy yàlla xëy nag lu nekk mënoon nga taal sax sa télévision di gis film bu doy waar nga fay mën nga romb ci koñ bi dégg nga fay mën nga gis nga lànk bañ a xool noonu nga muñee loolu noonu lañ bëgg bu koor gi jeexee nga continuer weeru koor weeru tawba la woon shahru tawba tuub ñu bëri tuuboon nañ gis naa ñoo xam ne changé nañ sax seen yére ut ay mbaxna yu weex teg seen bopp ut ay kaala ut kurus ut kaamil soo waxee rek ñu ne la alhamdulillah a tuub la woon waaw lu ngeen xam ci waajoo xam ne dañ ko sang ba mu set ñu diw ko ba mu leer nañ ñu xeeñal ko parfum gëtt bi gën a neex ñu solal ko yére yi gën a rafet mu daal dem daal di diwoo iwil ku mel noonu boo ko gisee loo koy wax fii nga toog tontul ci sa xel soo gisee sa mbokk mu mel noonu loo koy wax waa joo xam ne ndeysaan saa yu xëyoon day dox ay kilomètres ñu may ko oto ñu dem jàngal ko dawal ba mën ñu may ko utal ko permis mu xëy rek jël martu tiim oto bi di toj ku mel noonu loo koy wax tontul fi nga toog waa joo xam ne amul woon kër da doon loué ñu defal ko kër gu rafet indi ko ba ci kër gi dugal ko mu xëy rek utim ndaraan nee nañu moo ñoxe kër gi tabax bi neexuma ku mel noonu loo koy wax loolu mooy ki woor ba koor jeex mu dellu ci lu bon sikk sàkka nekku ci ne ab dofa ngoog ku duggaat ci mooy yàlla ngoog ku nar a alkoo ngoog ku yàlla ubbil yoonu jahannama du tuub mukk lu dul yàlla dugal ko safara mu ngoog yal na yàlla musal ci ñu ku mel noonu weeru koor weeru tuub la woon yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar weeru koor weeru tuub lañ woon tuuboon nan sang woon nañ sunuy bakkaar raxasu woon nañ ba set daa di set wicc jublu yàlla yàlla subhanahu wa taala nangul nu nga lawaay mbokk yi bu nu delluwaat ci tilim tilim bu ñu delluwaat ci sobe bu ñu delluwaat ci salte bu ñu delluwaat di tuxaat di logaati poon delluwaat ci carte delluwaat ci njaaloo delluwaat ci sangara delluwaat ci musique delluwaat ci col gu bon loolu yàlla musaloon nañ ci weer wi nanu góorgóorlu ba yàlla subhanahu wa taala langal ñu ci njub ñu bañ a delluwaat ci lu bon loolu waaye mbokk yi weeru koor weeru yërmande la woon kaana shahru rahma shahru rahma weeru yërmande ñun ñëpp doonu amoon yërmande suñu xol di jéggalante di jëlalante léeg-léeg benn waayu arrière sax dal sa kaw ndeysaan nga téye ko mu xool la nga ne ko jéggal naa la fekk waxagul dara ci oto yeeg fépp koo laal rek mu ne la waay waay waay tey ko alhamdulillah dafa juum ñun ñëpp ñuy jéggalante ak yërëmante mbaa weeru koor du jeex ku nekk di dank kurpeñ ñii di mbëkke mel ni nag mbaa weeru koor du jeex ñu delluwaat ci sunu jikko yu ñaaw yooyu ginnaaw ba nu yàlla subhanahu wa taala raxasee ñun ñëpp ñu doon yërëmante yonent bi ne irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci suuf su ngeen bëggee waa asamaan yërëm leen allahumma arhamna qabla al mawt warhamna inda al mawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل لنا قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله